mu faral ko mais di ko nangul loo xam ne da koy bañal ñi mbokkal làng gi. Hmm. sëriñ bu fan yi la fi demoon. waay euh, marché poisson. waay réunion privée. ñu fekk ko ñu gàntal ko ko euh, opposition presque kenn mënul dem fenn pendant ce temps quand le président Macky Sall fait de tournées économiques. Hmm. Amadou Ba fait des balades politiques te mënuñu ci dara. kon donc président Macky Sall de par ses actes il est en train de diviser les Sénégalais parce que les Sénégalais duñ ko baal. Hmm. mais Ousmane Sonko de par ses actes il est en train de concilier. Euh, mais mais ni ñu ko defee nag noo ko jàngatee ni ñu ko defee c'est-à-dire ba ci dimanche bi on nous a fait croire que ne Ousmane Sonko un message important. Mm-hmm. bi mu war a jàllale ba administration teri euh, je veux dire euh, administration pénitentiaire génnee. Mm-hmm. note ba di fàttali. ku nekk ci prison yi ci aju am na loo mën am na loo mënut am na loo xam te ne yoon daf la ko tere. Mm-hmm. Euh, ñuy xaar 16h ginnaaw gi 18h ñu soog a jàllale waaw façon bi ñu ko defee noonu après mu mujj ci ne jomaay la ñu tànn. très bien c'est-à-dire que loolu daf lay expliquer euh, la capacité d'un seul homme trembler tout un état. trembler et, et, et, et c'est ça qui est beau ça veut dire que bu Ousmane ne na fi taxaw rek. da ngay gis gars yi yëpp daw réew mi ñëppay daw ñoom quoi indi jàdd yi ñii indi fetal yi ñii indi masque yi taxaw yooyu pour ñoom day sox quoi est-ce que vrai euh, bi bi loolu amee administration pénitentiaire génne communiqué bi mm. mais dafa ni rek xoolal rek comment Ousmane Sonko rek ah peut euh, euh, je ne dis pas problème mais pour mobiliser tout un état gis nga ci politique mm. gis nga Ousmane Sonko. Hmm. Euh, bon damay bañ sama mbokk mu yi mere ma quoi mais doon du ma joxe exemple boobu. Hmm. xam nga en fait li ma bëggoon wax rek mooy bu màggal jotee. Hmm. Sénégal day taxaw le temps du màggal. est-ce que maanaam cest à que ville yëpp dañuy nekk en perte de vitesse. maanaam Touba rek parce que yëf ya Touba la. noonu mu nekkee ci diini bu dee ci politique noonu la nekkee ci Ousmane Sonko. Ousmane su Sonko bu jógee état bi day taxaw nguur gi day taxaw système bi day taxaw ñuy xool fan la jëm day tourner gauche day tourner moom benn nit rek de <laughs> benn nit contre tout tout un système. loolu lu muy wane ça veut dire quoi ça ça da ngay wan ne Ousmane euh, fondamentalement moo nekk ci xolu sénégalais yi comprendre loolu daf lay wan ni. Euh, Ousmane du seen morom daal. est-ce que loolu. ba pare deuxièmement maa ngi ñëw ci euh, analyse bi. xam nga euh, état bi système bi. Hmm. moom xam na ni Ousmane Sonko l'a infiltré en fait et au plus haut sommet à niveau niveaux insoupçonnés. Hmm. xam nga rek li fi xew la bëgguma. Eh, kii kon donc comme Ousmane nee na. rek ñu commencé def communiqué yi nii parce que xam nañ ni ñoom sax ils sont peur de du dedans c'est-à-dire ñoom. waa ci biir xamuñu kii bien ñoom ñoom ñoom seen tiitànge c'est-à-dire que ñoom dañoo dañoo ragal Ousmane mais tiit ci seen biir loolu mooy seen problème Ousmane moom mosuñu koo ñeme mais léegi nag moom tiit en plus de ragal Ousmane léegi nag ñoom dañuy tiit ci seen biir parce que ñoom xam nañu ci seen biir Ousmane infiltré na leen lu ne mën naa possible que Ousmane mën naa tëdd fii ci prison bi ñu xëy si benn gis benn vidéo muy gënte duñu xam que ñoom xam nañ ni euh, Ousmane est capable de ça tout communiqué bi nag pour jéem a araftu xam nga rek. napp gars yeeg yooyu mais loolu si daf lay expliqué c'est-à-dire que Pastef soo koy xaar ci kamb gi mu hmm. génn ci kamb gee. mooy ci stratégie dëgg lañ nekk jamono ça veut dire que euh, tey jii euh, le système aura tout bloqué mais indi ne peut pas empêcher à Ousmane Sonko de s'adresser à ses militants et c'est ça qui est beau dans cette affaire là. Hmm. comprends nga l'État peut tout verrouiller. mais il arrivera toujours un moment où Ousmane su bëggee wax il sait parler canot parler quelqu'un et le message est audible et le message amul sax njiiti njiixi njàkk njiixi njàkk est-ce que donc donc donc léegi loolu lan lan lay créer lan lay sous ñoom ni ñu amee état am système <laughs> noonu la Ousmane amee état am système ak moom tamit comprendre voilà et c'est deux systèmes qui doivent s'affronter est-ce que comprendre waaw et que forcément dana feeñ ci élection ah mooy oui est-ce que mais saa yu Diomaye bu bokkee si mais Diomaye bu bokkee euh, moo Serigne Mboup ñooy dem deuxième tour bu fekkee euh, deuxième tour dina am. Hmm. ñu ne moom rek mën a dem deuxième tour Amadou moom tey mu dee. <laughs> comme ni ko Aminata Touré waxee. nee na moom gisu ko sax gisu ko sax deuxième tour grand. bu bokkee da jàpp ni bi ak report de voix lay doon. très bien systématique. bu bokkee. am na nu muy demee il peut gagner premier tour. Hmm. loo xam ne sax Ousmane mënu koo woon performance. est-ce hmm. Hmm. bu bokkee du mën a def benn performance Ousmane du koy parce que Ousmane ak li fi jot a na ñoo xam ni am na lu ñu ko téyeel. comprendre mais Diomaye yow mënoo wax dara loo koy téyeel Diomaye sax kenn xamu ko. yow Diomaye xamoo lu mu bëgg xamoo lu mu bëgg xamoo ay jabaram xamoo ay doomam bu dul lu muy génn di wax nii ci affaire politique. yow xamaloo dara. coupe googu nag dafa am solo ci politique. Ah. est-ce que ma dafay nekk benn genre virginité yow euh, Diomaye à part yu muy génn di wax nii. est-ce que mos ko dégg ci dara. kenn xamu ko léegi kumpa googu muy indaale nag. Hmm. doo koy amee plus fort que Ousmane Sonko xam Ousmane Sonko daa wax a wax a ah, xam nañ sombi la xam nañ ni et cetera et ah, nañ ko lépp. dugub la bëgg waaw ba ñu dugub ak yooyu. mais booy bi kenn xamalu ko dara. il devient un mystère. waaw comprendre nga. Hmm. te waxoon naa la benn affaire maa la koy wax nii hmm. réew mii. réew mi. Hmm. Sénégal gii. Hmm. Ah, cëslaayam ak cosaanam séeréer. séeréer waaw séeréer yi fii eh, ñun ñëpp moom Sénégal. Hmm. mais ñi fi ëpp cër ay séeréer lañ séeréer yi tey ji bu ñu seddoo séddoo Sénégal ñoo ciy ëpp cër. comprendre te ñoom gëj nañoo gis affaire yi yàgg na depuis ci Abdou Diouf ba Senghor ga Abdou Diouf ga comprendre euh, pendant longtemps amuñu benn figure. bu bu bu def la plus ou moins consensus. Mm. mais tey jii da ngay xool ne jo euh, bu jógee déjà day yóbbaale waa Pastef yi booy yi jeunesse yi xale yi intellectuels yeeg yooyu même les réticents yi nekkoon ci Macky Sall yoo xam ñooñu la moo tax ñu ñu basculer jigéen bi mm. parce que séeréer si ñu doon deret séeréer si est-ce que comprendre mm. kon donc man jomaay bokk sax dafa yàq samay plan man. oui mais ñi <laughs> mais ñi mais ñi Ousmane bokk moo ma gënal. mais <laughs> parce que Ousmane euh, mën naa ngemb Serigne Mbuub jox ko ay clé. boo xam ne xam nga mën na koo kii quoi. oui mais am na ñu koy opposé leneen mooy ni moom jotul gagné Ndiaga Ñaaw. ci ah, élection ah. locale yi ñu jëm. waaw ah, waaw a tranché le débat. Mm. Parce qu'il y a deux formes de légitimité qui se combattaient au sein de Pasteur. La légitimité historique incarnée par les Diomaye et la légitimité politique incarnée par ñi gagné seen mairie yi am ay nombre tànk et cetera comprendre en certain moment ñenn ñi dañ ñëwoon comme ñun ñëpp dañ jamono élection. ñun ñi gagné ñoo am légitimité. c' est vraiment parce que tu es plus ancien ci parti bi et cetera. Hmm. mais à l'heure actuelle aujourd'hui Ousmane a tranché pour dire que il accorde euh, la primauté à la légitimité historique moo loolu Ousmane moo xam la moo tax. Hmm. est ce que comprendre te léegi par exemple Diomaye soo defee le profilage son portrait psychotechnique oui, et cetera da ngay gis ni il avait un avantage concurrentiel sur les autres quand même ah Euh, je préfère Diomaye que euh, même si j'ai beaucoup de respect pour Guy, Guy hein, euh, et, sa cause parce que Guy euh, il n'est pas un politique en fait Guy c'est un activiste en fait ouais. boo ko bëggee évaluer mm. doo ko évaluer sur le champ politique mm. tu l'évalues sur le champ de l'activisme j'ai beaucoup de respect pour euh, pour Guy c'est un activiste c'est un révolutionnaire mais soo ma tegalee Birame Souleye tegal ma Diomaye j'aurais choisi Diomaye mm. parce que au moins à un certain moment de l'histoire Biram Souley a au moins défié une fois Ousmane Sonko quand Diomaye n'a jamais jamais du tout défié mm. Ousmane Sonko. comprendre soo ma ko tegalee ak kii nekk Assane kii. maire de Dakar. Euh, voilà on dit on dit. am na ñoo xam ni bon même si les gens les gens ne peuvent pas le ah, prouver voilà am na ñu koy xaw a reproché waaw très bien am na ñu koy reproché il est très proche de et cetera et cetera donc. Euh, mu des El Malick Ndiaye. doo koy tudd waa El Malick. waaw El. Euh, aussi contrôle mhm. judiciaire a tegu ci kaw. voilà contrôle judiciaire. Euh, moom. soit bu dul woon Diomaye moom lay war a nekk. Ah. c'est-à-dire que man si je devais choisir ah. Ouais. Euh, même si j'ai pas la prétention de choisir mais damay wax rek quoi c'est-à-dire que bu dul woon Diomaye. Hmm. le profil euh, euh, le plus apte ou le plus à même. Mm. de rester dans les codes. et c'est bien Malick comprendre waaw oh, oui. en tout cas je les aurais choisis de loin mm. que les autres eu égard e ñu fi ñu fi demee quoi et puis mm. ce qui est symbolique ça veut dire que euh, soo ko tànnee euh, son cœur de métier sera le pays wolof Euh, est-ce qu'il peut détrôner euh, Aliou Ngouille Ndiaye est-ce qu'il est très ancré en Aliou Ngouille ne le pense pas par contre Diomaye boo ko kiiyee loolu beneen logique ngay réveillé. ngay réveillé euh, la sérénité si je hmm. peux m'en appeler. moom boo ko kiiyee ak le fait mu nekk prison. dafa joué ci ñoom da nga jàpp ne si yëpp da cee joué. si day am maanaam choix bi jugul nii rek daal. d'ailleurs xam nga comment on va présenter les choses. Ah. élection présidentielle Sénégal da cee am candidat de l'opposition la plus significative dañ ko tëj mi ngi prison di joŋanteeg candidat wu nguur gi moo xam ne moom am na liberté fu mu dem noonu lañ koy schématiser. Ah est-ce que vrai nga et d'ailleurs parce que ñu ngi koy commencé sax depuis depuis depuis depuis Diomaye génn. gisoo ñu ngi dressé ñaari seen photo. très bien moo tax ah di ko di Macky Sall moom dama koy ñaan parce que Macky Sall moom suma copain la en fait waaw suma copain man tu sais que moi je n'ai jamais vu Macky ah. à part li ma koy gis si télé yi nii mosuma ko gis dama koy gis si télé yi nii rek quoi mais c'est que li ma ko bëgg a wax mooy. xam ma gis nga daje balaa balaa muy dem xëy na. bon après après peut être Macky kañ fi mu toll ni man bëgguma <laughs> daje moom Macky kañ nañ dem rek bu demee joxe leen ngay nag euh, su demee tool yi ma woowee tool yi ma ñëw quoi mais fi mu toll nii moom Macky na na gérer mbërëm bi rek quoi man ma gérer sama mbër quoi xam nga et c'est là où Sonko a été très subtil dans son choix. Hmm. en choisissant. Diomaye il n'a pas seulement choisi la légitimité historique mais il a choisi euh, là où ça peut faire très mal à Macky Sall parce que Macky Sall comme li ma lay waxee nii. Hmm. région yëpp a ko dumboyu élection yi passé région yëpp da cee daanu Thiès Diourbel yooyu yëpp da cee daanu Dakar yëpp da cee hmm. daanu. Touba yëpp da cee daanu ñaari bastion la dese Fouta ak Sine. Hmm. te léegi Sine ban perception la ñuy am. mais Macky Sall euh, mii ñëw juddoo fii ci ñoom comprendre hmm. ñu def ko buur samp ko ba yóbbu ko yëpp d'ailleurs la pays séeréer a donné à Macky Sall maire. waaye souvent bu ngeen xoolee bu baax yaa ngi fay inédit xam nga lu tax ma naan la cëslaayu Sénégal séeréer la. Hmm. teraanga bii ñuy wax nii. Hmm. loolu séeréer la en fait. séeréer ak joolaa ñoom ñooy teraanga parce que ñoom ñooy ñëw fekk koo xam ni bokkul ci ñoom nga ñëw ci ñoom. ñu jox la teraanga yëpp ma jox la benn exemple Fatick. Euh, ba Fatick dee Fatick ba léegi presque maire yi fay nekk maire del xool nan lañ sant ay Gassama. ay Ba ay Sall yow on est en plein pays séeréer. loolu teraanga boobu séeréer rek séeréer rek ku mën. Mm. joolaa ngay ñëw demal Casamance euh, boo demee ay Sédhiou boo demee ay Ziguinchor. Mm. ci Robert Sagna nañ commencé am maire euh, joolaa pur quoi. boo demee Kolda Mokhtar Kébé yaa ngi fàttaliku. waaw Mokhtar Kébé nekkoon nañu ministre. boo demee Sédhiou. Hmm. ay Ibou Diallo tuddee nañu ko école. Ah. Hmm. Euh, soo demee Ziguinchor si le maire Paa boobu fu Fuuta la dëkk xam naa ko sama mbokk la sax. Hmm. Ah, bañ nañ ko ba foofu dañuy wax si le maire. est-ce que comprendre teraanga boobu Sénégal ñaari euh, askan euh, ñoom rek ñoo ko fi man nga ñëw ci ñoom doon gan ñu def lu.